ay jamono ci ginnaaw euh, dundoon nga fi lu metti ci côté réseaux sociaux bi ci benn émission boo defoon et cetera boobu ak léegi loolu loo ci jànkonte ak loo ci jàng. non loolu kii la woon rek benn interview la woon nii rek mhm. diiru dafa romb rek ma woo ko ñu def suñu liggéey après mu jeex. Mhm. nit ñi wax ana wax jooju tey lu nekk jeex na. Mhm. léegi man léegi dinaa xam. ci wax jooju noonu xam naa ci ñi ma bëgg xam ci ñi ma bañ yaa ngi comprendre xam ci ñi nga xam ne ñu ngi may jàppale ci sama liggéey bi am ñoo xam ne tamit mu ngi loolu parce que jamono bi tamit boo fi nekkee tamit il faut nga bari ay waxkat rawatina nag yàlla bu la bindee yéen yi wala nga mel neen li mm-hmm. yaa ngi comprendre ginnaaw sa bu romboon fii di xeex dañ ciy wax taxaw di seetaan di vidéo mm-hmm. loolu interview la woon mm-hmm. après mu jeex teewul nag maag liiru ñu ngi dund jàmm ak salaam parce que liiru jour boobu laa koy njëkk gis ju fi may liggéey ñoom ñoo ko woo ba mu ñëw liiru c'est la première fois ma koy teg bët. yaa comprendre ñun ñoo def suñu mise en scène rek. yow mi nga xam ne yow caméraman nga wala képp ko xam ne yaa ngi yëngatu ci réseaux sociaux bi rek xam nga li nga xam ne mooy mise en scène. Mhm. yaa ngi ree de. yaa sama xol moo sedd. <laughs> sa xol sedd. waaw. waaw doo ma daal ji quoi maa ngi leen mais après euh, mu am loo xamante ni xam nga coow lii xam nga ñu bari attaqué la après réseaux sociaux yi non gel bi warul def lii et cetera léegi après noo dund ak sa famille. man may fiya coow du dara. day jeex donc mel ne. day jeex yow imaginel bi ma defee kii bi matul sax ay 2 semaines semaine semaines leneen ñëwaat loo xam ne moo gën a piir loolu. waay yaa ngi mhm. ñu gën a piir loolu waxatuñ sax leneen gën a ñëw. Mhm. kon nag. lan laa def man li ma def amul coow parce que man génnewuma samay cër mhm. waxuma fi loo xam ne waruma ko wax waxuma fi loo xam ne ñoom mosuñu koo dégg seen nopp yaa ngi comprendre te robe bi ma sol aussi dama jiital kii saax après mu jeex comme ça robe bi nga sol li nga soloon si robe rek yéer non non comme du comme bi hmm. du comme bi daf mel ne boobu moo parce que boobu dañ ma koo ñawal mais bi près à la ok <laughs> euh, ba nga pare ci loolu après am na yoo xam ne comme genre ay ay lëmbal ak yooyu. loolu ñi xamul ñoo koy wax mais loolu moo njëkk si yi ma day may def mm. yooyu moo njëkk ci sama émission yi may def maa ngi ko doon defee suñu gal suñu gal 24 laa ko doon def. Mm-hmm. may def sama lëmbal soo foofu. Mm-hmm. di indi samay nit ñuy lëmbal. Mm-hmm. xam man yàlla dafa dogal li man mënuma dégg ndënd wala bongo ma toog. sama yaram moo noonu. deret bi moo tàng. waaw waaw damay jug fecc da ngay fecc lëmbal sa yëf la lëmbal sama yëf la maa ngi jàng nag mais bis bu ma mokkale ñëpp nañ xam ne mokkal naa ku lay jàngal ñi ma war a jàngal lëmbalkat yu mag yi lëmbalkat bu mag bi kii mu mu lay jàngal kan du ma jaar turam de xaw ma ren géwél la tudd <laughs> ah mooy bu mag Sénégal fii de loolu lëmbal la Ngoné Ndiaye Géwél Ngoné Ndiaye Géwél waaw waaw moo lay jàngal ak tamit non jàngalu ma nag yow man kese ma nekkee sama néeg mën naa lëmbal sama bopp man damay tëdd di lëmbal <laughs> di dox di lëmbal di taxaw di lëmbal li ma toogee nii sax bu la neexee ma lëmbal. ah bu lëmbal jeex. ok. <laughs> ay